waaw comme ni ngeen ko xamee tey euh, dañoo jógoon fii ci centre d'expertise euh, médicale des personnes navigants ñi nga xamante ni nous ñooy liggéey ci le métier aéroport donc te nag fi fii lañ leen di ay visite médicale donc mu nekk loo xamante ni dafa am solo parce que stratégie de hub aérien bi nga xamante ni la son excellence le président Macky Sall teg euh, AIBD di ci jouer rôle bu am solo donc moo tax euh, ñu bëgg renforcer le personnel médical ndax ñu nekk ci condition yo yoo xamante ni tey bu leen examiner wala ñuy def sen visite médicale duñu fi génn ci di djégaani dañuy ñëw défé ko fi ci Sénégal donc motax tay ñu ñëw euh joxé le premier lot équipement yi nga xamanteni ne AIBD SA mi nga xamanteni mom moy société bi nga xamanteni mo wara joxé jumtuwaay pour ñëpp ñi nekk ci secteur bi mëna liggéey dans de dans de très bonnes conditions mu ñëwoon indi ay équipement jox wa centre bi mu nekk ay équipement yo xamanteni dina permettre euh, waa wa centre bi mëna def sen consultation ak sen eh, examination bu jaar yoon. ci si loolu matériel bi ñu war a indi fii mu ngi toll ci environ 200 millions. France, CFA yi nga xamante ni euh, AIBD dina ko jël ci gafagam pour wut ay matériel pour mën renforcer mais également pour que centre bi mën nek centre bo xamante ni tey day répondre aux normes internationales ba sous région bi ak euh, yenen dëkk yi nek autour yëpp dinañ fi mën ñëw pour euh, di fi def de consultation te si lolu war nañ construire du centre bi vraiment bëgg nañu am nañ fi benn espace sank ni rek dem nañ xool ko war fa construire euh, euh, centre bu mag a mag loolu comme ni ko waxee dafa bokk ci projet phare yi nga xamante ne AIBD da koo jël pour mettre en œuvre la stratégie du hub aérien bi nga xamante ni moom la ñu bëgg suñu dëkk nekk euh, un carrefour boo xamante ni tey lépp pour lu jëm ci wàllu aviation civil et militaire dina mën a jaar fii ci Sénégal. waaw mo lolu tay bi démé visiter ko normalement si fan yu ñëw rek dinañ démarrer travaux yi te jàpp na ni fi ak at liggéey bi dina mën yemb ba ñu mën passer à l'inauguration. ñëpp xam nañ ni lu jëm ci walu aviation dafa xaw cher te tay bu ñuy jël suñu pilote yi wala suñu personnel de yi buñu waré waree def ay visite médicale dañ leen ñu jël di leen yóbbu bitim réew te je pense que tay buñu amé fi fii centre dina wàññi bu baax baax coût transport bi coût hébergement bi donc je pense que ni tay lolu dina mëna nek ay njeexital yo xamanteni ni bi jëriñ sunu eh, économie mais également di di dina wàññi frais yi bu baax baax. waaw centre bi dinañu gën a bu amee espace bu rëy am matériel bi war ci mu mot dinañu gën a yombal euh, liggéey bi ñu mën a ubbeeku war a mën a gën a am ay visite boo xam ne bu boobaa dina mën a gën a askan wi nga xam ne dañoo bëgg a liggéey ci li ñuy wax euh, espace aérien donc bu boobaa dinañ ko mën a ubbil ñi ci Sénégal mais ubbi ko ñi wër Sénégal ak lu ko Euh, jànko li ñuy jànkonteel actuellement mooy surtout problème autonomie maanaam mën na liggéey liggéey bi ci temps bu giir bu tuuti ci li mu gën a gaawee euh, parce que euh, service yëpp motul walla bu motee itam il faut que spécialiste bi nekk fa pour mën a mottali liggéey bi voilà waaw léegi loolu hôpital bi moo ñu ci jàppale ci lu bëri parce que moom am na yenn plateau technique mooy maanaam matériel médical bi am bi ñuy war di soxla pour def yooyu expertise di jox euh, hôpital bi yor na ko euh, spécialiste itam ñu ngi fi donc bu ko defee ñooñu ñoo ñuy jàppale si liggéey bi. loolu centre bu bees bi dina ko saafa dina mën a tax ki nga xam ne mooy personnel aéronautique moom bu ñëwee dina xam ne fii mu nekk nii dina fi mën a def lépp li mu war a soxla pour am certificat am ci euh, anam bu gaaw. Euh, matériel bi dafa ñëw jàppale ñu ci li ñuy wax euh, spécialité cardiologie bi am na bi ñuy euh, saytuwee li ñuy wax tension artérielle bi ñuy saytuwee électrocardiogramme mooy xool xol bi ni muy doxalee donc loolu ci lu ndaw la ci unité bi mais c'est un début c'est un début pour mën a eggali encore pour gën a mottali liggéey bi ANACIM mooy jox centre bi li nga xamantene ne autorisation bu kay permettre pour mu jox nit ay certificats médicaux ndax autorisation bobu bu ko centre bi amul du mën délivrer ay certificats médicaux donc ANACIM mom mo kay superviser ANACIM moy saytu ndax centre bi mi ngi doxal ni mu wara doxé ndax amna na nit yoo xamante ne am ak amna matériel bi aussi pour def liguey bobu loolu moy rôle ANACIM.